rapport bi ñu génnee ren ITE daf ni milliards la jural gafaka réew mais parallèlement suñu rapport tam nañ ci ni lu am un solo la ngeen japp ko 999 milliards manam lu wara ma mat milliards, milliards ko secteur privé bi ci walu sous-traitance ci walu fourniture de biens et de services suñu jëlee loolu 445 milliards mo ci ñew ci nationaux yi mais Thiès région minière du Sénégal contribution ren ci 122 milliards 59 milliards daw Thiès dugal na cinquante milliards daaw jéeg quarante milliards soo ko xalfulee dafay jege téeméer ak juróom fukk fi jege mais suñu xoolee daaw dépense sociale loolu nga xam entreprise ñooy coobare bi di ko def sa du wareef un milliard nangam la. mais ren ñu wàññiwaat ko mu nek 503 millions Ce 503 millions walu santé 2 rek lañ ci dugal suñu gis que ni ñiy dëkk euh, en maladies, li ñi am ci walu maladie demal ngundian demal zone Darou dos, donc 2 lu tuti la benen bi environnement li ñi yàq ci alam bi ñu jëlaat 2 pour fa def lolu comp la benen bi ñu jël 3 pour financement de GIE locaux Ce ñom li ñu wara def moy accompagner len donc ñu ni ñun Thiès am 59 milliards ci budget jël 503 millions, lolu sarax la contenu local nak dafa nek loi bo xamni suñ ko secteur mi ñuy amagu ko mais ñu ci waxtaan amna ay dispositions article 85 ak 109 mais suñ ko jëmmalé dina permettre tey xëyu ndaw yi xale yoy dañu am formation qualifiante ci amna école polytechnique amna ISEP amna lycée technique yoyu mën nañu former xalé yo xamni pour des métiers qualifiants ñu bañ nek ay manœuvre rek ay dawalkatu engin suñ ko défé ñu créer ay GIE autour de la mine GIE yooyu ci walu par exemple li ñuy sol ci walu li ñuy lekk entreprise bi ñooñu dafay joggé ci gox goxaan bi donc loolu day créer emploi créer richesse benen bi moy transfert de technologie donc loolu ñu ni nañ ci xeltu ñun laata loi bobu di ñew Thiès indi ci contribution benen bi moy secteur pétrolier bi.

bi décret bobu génnee 2009 ba 2020 tay fima lay wax ni benn deureum bo xam jogé na ci fonds de précaution yu sa entreprise yi fay nañ ko état collecté na ko mais delluwul ci goxaan ñun nak ité e souvent il faut ma léral ko ñun duñu gérer xaliss ministère des finances moy yore xaalis ñun li ñuy yore mooy flux finance information yi lañuy am jébbal ko ci rapport mu lér nañ pour que tay député yi mën ko jël élus locaux yi mën ko jël citoyens yi mën ko jël parce que li mu gëna jaaxal surtout Sénégal moy politique politicienne bi tay assemblée combien de députés ñoo fa nek souvent xuloo lañ fa nek ak ñeneen ñi mais amna plus de 60 députés maires yu joggé ci gox xani tay tey ñun jox leen information pourquoi ñom ñu porter plaidoyer bi mënuñ ko def ba ñu dugal xaalis boobu ci loi de finance ni rectificative wala loi initiale pour que gox xani yi mën ko jot mais ñun ngay dégg wala ITIE c'est ñun suñu rôle parce que ñun faluñ ñu.